walen bay barahama jere jefe bay war nañu بسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم مكو جيري مك طالبين ني كين كو نيك سي تورنا سي جيمم ني واتو جين سي بردت المديح للامام البصيري والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتمي ونفس بكن كالطفل دفما قلي إن تهمله بوكو باي شب ممق على حب الرضاع تبق نمب وإن تفتمه بوكو فرلي ينفتمي مدال فرلي bakkan daal comme xale xale soo ko bàyyee muy nàmp rek du xam ma ba ween wa dafay nàmp rek de soo ko ferelee nag dana ko jooy benn fan ñaari fan waaye bu yàggee mu min ko waaw ba boo ko joxatee ween wi sax dootu ko bëggati rek laa wax de bakkan it soo ko bàyyee ci moo yàlla mu nuur ci rek boo ko bàyyee ci bëgg bànneex dafay continuer di bëgg bànneex loo ko miinoon rek moom bakkan bi loolu lay miin waaye soo ko forcé ak nànk nank jéem ko bare baroo moo yàlla yooyu nga xam ne yàlla bëggul ko su yàggee moo yàlla yooyu lay gën a sibde ni nga xamee ne xale soo ko xaayee wi dana métti ci moom waaye balaa yàgg rek mu miin ko gannaaw ko boo ko joxatee ween wi sax du ko bëgg a nàmpu daf koy bañ naka noonu it bakkan soo ko xaayee moo yàlla yi nga xam ne bànneex la ci moom dana métti ci moom waaye bu yàggee mu miin ko ba soo ko tourné woon pour def loo ko moo yàlla yooyu mu bañ ko kon bakkan a ngoogu comme xale dañ ko yar waaye ba bakkan ci lu ko neex rek waaw mu nekk ci xamut xiqi mukk su boobaa caalkaane la la jëmee kon fas def tourné la waa bànneexu bakkan waxaadir mooy tul antu waliyo nga falko ko innal hawa anaka bànneexu ya khubakan maa tawalla lam mengo yusmi dana ko ray aw yasimi wala mu aybal ko kon fexel ba xagn sa bakkan bi bànneex yi nga xamne yalla daf ko waxaye mbolem bànneex bo xamne yalla daf ko waxaye bakkan fexel ba xagn ko bakkan bi fexel ba bul fal bakan bi ci sa kaw yaram wi mo pud sa ruhu gi dole lu ko neex rek nga defal ko ko lu ko naqari nag xalaatoo cee dugg mu naan la nelawal naan la sàccal naan la njaalool naan la fenal naan la bul julli waaw naan la bu xoor lekkal naanal ndox lekkal naan laa bëgg ngel la bul fal sa bakkan bi fal gu mel noonu bis boo falee sa bakkan bi ba méngoo sa yaram wii natta ruux gi dana la rey bakkan bi wala mu ayibal la bakkan ku ko fal ci yaram rek mu ray ruuxu su boobaa borom xol bi dafay dee ndax ruux gi dee na xol bu dee nag dootu bëggati yàlla du bëgg ñooñ yàlla du bëgg a lu baax du ko wax du ko def lu bon rek lay def rek laa wax de borom bakkan boobu fal bakkanam ci yaramam rey na xolam waaye rey na ruuxam gëm yàlla dootu ci nekkati bu yàggee sax mu dugg ci kéeféer même bu julit soo faree sa bakkan rek bu yàggee mu xéeféer loolu ndax dana rey sa xol ndax moo yàlla yi dañuy muur xol gi su bi muuroo rek ruux gi muuru na doomu aadama xan ruuxu ak xol waaw bakkan ruuxu nag lu jugee ci yàlla rek moo koy dundal yaram waaw ñam yi ngi jugee ci suuf moo koy dundal ndax moom suuf la jugee waaye ruuxu moom waaw santaane yàlla di ko jëfe looloo koy dundal soo falee bakkan nag daf lay xiir ci luy dundal yaram di la xaaye luy dundal ruuxu su kay dana rey ruuxu waaw soo falee bakkan dan la def loo ay mooy yàlla te mooy yàlla yooyu dafay soppeeku tomb yu waaw ñuul kukku di tomb si sa bi ba sa muuru bu xol muuroo nag nit ki boo ko yàlla nee na mu bëgg laa songu booy jàngal alxuraan ci kanamam xol bi di bëgg a dagg ndax bëggu dégg loolu boo misigee mu kontaan boo fenee mu kontaan boo caaxaanee mu kontaan waaw ndax lu bon rek la bëgg rek laa wax de kooku seytaane piir la xolam deena ruumam deena lu ko waral mooy fal gim fal bakkan bi rek waaw ci yaram wi bu fekkee rayut la comme noonu dana la ayibal bu la moom nga génn ci lislaam dem nekk xéeféer bu la rayee rayut dana ayibal xol bi ba xam ne xol bi moo yàlla moo ëpp lu muy topp yàlla ba nga xamee ne roo gi danay dund gaaw waaye dundam dafa lottu ndax jaamu yàlla lu néew moo yàlla moo ëpp roo googu deewut ndax ma ngay jaamu yàlla lu tuuti tuuti ma ngay dund tuuti tuuti waaye lompañ na lool ndax la muy jaamu yàlla néew bakkaar yee ëpp xaw tuuti mu deere kon soo foree sa bakkan dana rey sa ba nga dugg ci keefeer rey sa xol ba nga dugg ci keefeer bu ko rey dana ko ayibal ba nga xam ne ruuxu gi dana tilim tilim goo xam ne bu dee jeg yàlla yàlla dana ko mbugal waaw ndax la muy dund bëri wut maanaam la muy yàlla bëri wut xol la muy gis lu baax lu néew la lépp ci waxtoom def na ko ci caaxaan moo yàlla kooku waaw ru bakkan bi ayibal nu ko rek de <clears throat> wala boog sax nga ne boo falee sa bakkan ci sa yaram bakkan bi dana la rey ndax da lay bëgg loo àddina xiir loola ci àddina di la ko xutloo te àddina ku ko jublu rek mu rey la boo ko weddee demal nga seetlu histoire yonent Yàlla Iisaa ak taalibeem ba ba nga xamee ne insaan nag taalibeem ba ñuy tukki mu jox ko ñaari mburu ne ko téyel mburu mi ah taalibe bi daal di lekk benn mburu ma bu ko defee ñu dem ba ci kanam insaan ne ko ana mburu mu ne ko gisuma ko insaan dem ba ci kanam mu gis ab kéwél ne ko kéwél gi kaay kéwél gi ñëw mu tër rendi waaw ñu lekk ba suur mu ne kéwél gi jugal doxi sa soxla kéwél gi doxi soxla Insa ne ci àq yàlla mu ñu defal lii wax ma kun wax ma ana mburuma mu ne ko gisuma ko ñu dox ba ci kanam rombati rek waaw ab géej mënuñ koo jéggi Insa ne ko gëmmal ñu gëmm rek gis na jéggi nañ géej ga Insa ko ci ki ñu defal lii wax ma ana mburuma mu ne ko gisuma ko ñu dem ba ñu gis ñetti jëli wurus waaw bu ko defee Insa ko. jël wurus bi maak moom benn bi yow benn bi ku lekkoon mburu maa ko moom ki jëloon mburu moom mu ne ko maa lekkoon mburu ma insaana ko tos kër ñeel na la li nga gis ci kaw teef yëpp taxul laa wax dëgg àdduna rek la tax wax dëgg jëlal ñetti joor yëpp man soxluma soxluma ci dara ana lu yonent yàlla insa di defee àdduna laa wax nit yàlla àdduna du dara ci ñoom wutuñ ko mu téye ñetti jal wurus di ko garde nag ñetti nit fekk ko fa rek. daal ko rey jël ñett ju ñetti jël ñetti jóoru wurus yëpp bu ko defee ñoom it <clears throat> waaw ñu xiir leen ci àdduna ñu dem ba xiif yoon ni kenn ci ñoom ne ko demal jë demal jëndal ñu luñ lekk ca dëkk bële ba muy jënd luñ lekk ñu xalaat ñoom ñaar ne kii daal bu ñëwee nañ ko rey ñu seddoo jóoram bi moom it mu ngay xalaat ca xolam ne man daal naa jënd ñam wi def ci tooke ñoom ñëpp ñu lekk ko dee. ma jël ñetti joori wurus yëpp man kenn looloo gën a xoom gis nga noonu loolu yëpp bakka na ko yóbbee ak xiir ci àdduna bu ko defee bañ ñëwee fekk moom jën nañ ñam wa def ci tooke ba mu ñëwee ñu daal di ko lekk dee waaye njëkk ñuy lekk ñam wa rey nañ ko sax moom it ñu rey ko daal lekk ñam wa dee bu ko defee ñoom ñeenti ñëpp Insa eh, ñëw fekk leen ñu ngi dee ci njat ci jal wurus bi mu ne àddinaa ngi nii ni lay def ay ñooñam kon boo faree bakkan bi ci yow ci sa bopp bakkan bi dana la ray waaw bu la rayu de dana la yibal ndax nit koo xam ne foo ko fekk ma ngay caaxaan ma ngay def lu bon waaw ñëpp xamee ko loolu ko kay xam nga ne ku ayib la ci biir nit ñi ku ko xool rek. doo ko teg fenn doo ko kon bakkan ku ko fal mu ayibal la ci lu feeñ ba kenn dootu la nawlooti wala mu ray la rayu daal dana la ayibal ci lu feeñ wala bakkan ku ko fal mu ayibal sa xol ayibal sa ruuxu waaw ba duñ jaamooti yàlla lu bari wala mu ray leen sax bañ nekk xeebeer kon bul fal sa bakkan bi <coughs> waraayaa na nga sàmm bakkan ba wéyee moom saa yi matun na sàmm la fil fil amaali ci jëf ya way ni yéen ne moom istaala neexlu na almara caaw sa maanaam barab bu muy sàmmoo wala tusimi bul ko sàmm bàyyil sa bakkan bi lu ko neex na def waaw mu mel ni rek ab jur guy sàmm ci tool bu dagan mu sàmm sa jëf ñooy tool ya jur gi mooy bakkan bi yow yaay sàmm bi jëlal sa bakkan boobu ba ko muy def jëf ju ko neex ba mel ni jur ji sàmm ci tool bu ko neex waaw ci jëf yi nga xam ne dagal na nag ni nga xamee ne jur gi it sa yogoo sàmm ci tool bu daganut waaye bis bu demee ba bakkan bi lu ak barab bu mi sàmmee rek bul ko fa sàmm maanaam bakkan bu demee ba lu ak jëf bañal ndax ñaareel jëf yi bakkan di neexlu yooyu koy xalak moo tax ba ko muy def lu lu ne waaye fekk neexlu wut ko rek de bu demee ba neex lu jëf nag bañal kañ kooku rek laa wax de <clears throat> ñaareel moom la ko neex rek mooy li mooy la lay xarak moom bakkan maanaam lu bëgg wax mooy bul topp sa bakkan ci lu ko neex rek nga defal ko ko waaye nam neex lu wut jëf ji daal ba ko mu def ba ko mu julli waaw ba ko mu xoor ba ko mu jaamu yàlla mboolem xeeti jaamu yàlla yaaj jël xalalam saraxe ko bu bakka bakkan ne ah dencal sa alal ka xam nga ne saraxa sa kat baax na waa yumb da ngay ñàkk bañal ndem loolu neex na ko bañal nga dem saraxe saraxe def ko ndax foofu la njëriñ nekk waaw nga bëgg a jël sa waxtu jàng bakkan na la ah, dafa metti ah yow mënoo am xam-xam jamal tëdd nelaw rek wala nga noppalu yàlla baax na déedéet bañal njàng moom bakkan di la aaye loolooy li lay jëriñ xam njàngam mu ngi fa nga commencé fa nga juddoo ba fi ngay dee fekk deewagoo rek jàng weesut xam-xam weesoogul la maanaam yëlay bakkan yi di digal muy yu neex ci bakkan waaye baaxut ci yow bañ ko rek laa laa la wax de loolu la la bëgg wax ne la bàyyil bakkan bi mu jëf waaye bu neex loo dara bañal nga tëdd ba guddi mu ne la waaw ne la yu neex na continuel bañal nga jug jaamu yàlla waaw xam ne na yooyu mu lay digal daf la ci bëgg alak <coughs> kam xasanat ñaata yoon la rafetal lazatan lazatan ak bànneex xaatiratan bi aji rey lil mari nit ki min haytu lam yadri foo xam ne xamut an na summa ne toog gi fi dasami mu ngi ca ñaay ga ca geres ga maanaam <coughs> ñaata yoon la bakkan bi neex lu bànneex boo xam ne dafay rey borom nekkee nit ki ba muy topp bakkan bi ci bànneex boobu xamutoon ne bu dee lii bànneex la it dañ cee def tooke gu la mën a gu la rey ba mel ni garas ñu def tooke ku ko lekk dee xoolal ñoom yi nga gën a bëgg waaye buñ ko tooke woon dootoo ko lekkati ndax ndax baaxut boo ko lekkee dee bakkanit noonu la mel lam lay digal daal ci ay mooy yàlla yépp xamal ne <clears throat> neex na gaa ci bakkan waaye yan nag tooke goo xam ne lam lay jural ci naqar moo ëpp fu bànneex wang ci am soo ko xamoon dootoo ko defati ni nga xamee ne ñam wi nga gën a bëgg buñ la ko taajalee mu wóor ne la ne tooke la dañ cee def tooke loo xiif xiif dootoo ko lekk ndax boo ko lekkee mu jur la naqar woo xam ne moo ëpp fuuf waaw bànneex wang ci am mooy yàlla yëpp noonu la mboolem yàllaaye dafa mel ni rek ñam muñ tookee <coughs> boo ko jëfandikoo am ci naqar woo xam ne naqar tolul ni moom wax ca ragalal ak sa pexe ya <coughs> muy pexe yu nëbb ya min jooyn yu jugee ci xiif wa min shabayn ak yu jugee ci regg farbe maxmasatin bëri na sax xiif goo xam ne charun moo gën a bon mi ne tuxami ci fër fër mooy lekk ba mënatoo jug moytul xiif ba ëpp ndax soo xiifee ba ëpp dana la tayalloo ba dootoo mën a jaamuti yàlla dootoo mën a góor góorgóorloo ci yàlla doo mën a liir loo dégg doo mën a jëf lu bari waaye mooy it pexe yu nëbb yi nekk ci suur ba ëpp ndax boo suuree ba ëpp sa biir nelaw rek ngay tal doo talati jaamu yàlla ñaar yëpp dara baaxul ci mu ne léegi-léegi sax xam na xiif yoo xam ne ñoo gën a bon fër ndax boo reggee moom boo tëddee tuuti mën naa am nga mën a defaat dara waaye boo xiifee bay bëgg a dee amaana doo talati jaamu yàlla de <clears throat> am laa bëgg wax ne dëddu àdduna bu mu tax mukk nga loofal sa bopp lompañ ba nga xam ne moo benn kattan ku rebuux nga daanu loolu mën na laa yóbbee ba nga tayal ci jaamu yàlla de loolu sax léegi-léegi <clears throat> lekk ba suur tere ko waaye bul di rekk ba dootoo mën a ci jaamu sa borom kon na digg doomu ci mbir mi di lekk loo mën a lekk tam yem ba du la yàqal jaamu yàlla waaw waaye ngay xiifal sa bopp léegi-léegi xiif goo xam ne du la lottuloo du lompañ loore <clears throat> wastafre na nga jeexalaat dama ronkañ yi min ay ni ñu tukkee ci bët boo xam ne wala boog min ay min ay ay ay ci bët boo xam ne xadim talaat fees na minel maxaarim yi ci yu xaraam yi wal jëm na nga taqoog ximmetan na demi kaaraange gaa moom rëccu la sa ñaari bët yi nga xam ne yàgg naa xool lu xaraam fexeel ba jeexal ronkoñ yi ca nekk yëpp jooy ko rek daa wax de ndax yàgg naa def lu xaraam fees na tepp lu xaraam kon génneel dong xañ ba mu jeex tàkk ngir rëccu de waaw rëcc goog nag moo di kaaraange gi gën a mag bu doo ci bakkaar yi ndax tuub balaa baax foo borom rëccu te it loo rëccu rek ñaareel du ko defati kon taxool rëccu yu ñaaw yi nga xam ne passé na lu mu bon bon nag bu naagu ci yërmaande yàlla amaana yàlla yërëm la continuer rek jaamu borom. te réccu yi passé fexe ba bul ci bul delluwaat te nga jooy bakkaar yi nga xam ne waaw weesu na fexeel ba jooy ba dootu amati ronkañ rek laa wax de loolu lépp ngir réccu bakkaar weeso weesu laa wax de <clears throat> soo ko defee rek am kaaraange wa xaalif na nga wuteega naf sa bakkan cheytaan ak cheytaane wax si ma nag leen mooy ñoom ñaar wayna huma nem ñoom ñaar maxadaaka sel nañ la nu solaay biir fa tey mi leen tuumaal fexeel ba wuteeg sa bakkan fexel it ba wuteeg seytaane nag leen mooy bu leen topp mukk même suñ la digalee luy niru na dañ lay laay biir bañal dañ laa bëgg a bakkan léegi-léegi mu digal la mel ni lu baax la lay digal fekk dalaa bëgg xarak moytul naan laa ah, lii dafa xaraam waaye pe amoo pexe ah góorgóorlu rek yàlla ku baax la defal rek yàlla ku baax la ah ñëpp koy def kon defal yàlla dana la jégal loolu la pexe bakkan la ngay commerce di jaay si misaal mu ne la ah, marché bi yëpp fii boo waxul dëgg doo jarle kon naral waxal lu xamut ndax nga jarle yàlla buru baax la dana la jégal wala mu ne ah commerçant nga commerçant diine mënul mat waaw bu sa doo jarle du baax kon nag foo nga rax ci la xam ni commerçant yi ñu ngi ko ca rax rek nga mën a jarle yàlla buru baax la wala mu ne la ah nekk nii xam nga ne moo jot noppalu rek ba guddi nga fay julli waaye waxtu nekk nga naa koo julli loolu mënul nekk waaw moom mu ne xaalis moom wut la rek noo ko wutee baax na boo amee ba pare nga jaamu sa borom nag di saraxee yooyu yëpp pexem seytaane la dafay niru ku digal lu baax waa waaye digalul lu baax pexem seytaane bakan la buñ la laay biire laay biir yu mel noonu tuumaal leen rek bañ <coughs> bul ko def wala ñu la ah yow ndeke jàmbaar nga ponkal nga kat góor nga de xoolal yaa def yaa def sàngam yaa def jëf sàngam yaa def sàngam tuumaal leen defoo dara bumu tax nga yëg sa bopp saa la laay biiree laay biir goo xam ne niru na lu sell nang leen tuumaal moom seytaan ak bakkan seytaan nag moom bu la digalee dara defoo rek mu ba fa mu ba daal di la digalaat leneen boo ko defoon mu ba daal di la digalaat leneen waaye bakkan moom su la dara du la bàyyi mukk fekk defoo ko de moo tax moo gën a waaw bon laa wax de seytaane pexem Diz um dava vai a camti. Denga. Mota ya kamti shaitan da juge. Sura digre da da forek. Mune kharal ma digral lenen ya kamti na bater baba. Wa alam ne ko digal digal lenen. bakkan na moom boo digalee sàccal fekk sàccoo doo am jàmm sàcc rek mooy nekk sa xel ni moytu leen ñoom ñaar di la dañ laa digal digal goo xam ne dafay ñuru ne waaw lii dëgg la xamal ne rek am na pexe mu nekk ci biir mu ñu la bëgg a yàqale nit ku bax dem na ci ab sangara fi rangé l'islam japp ko mu commencé tok bitel yak bam dess ben bitel nako ya ko bitel yeb ya ko tok ngir yalla mu daldi di ba bitel bobu xamne bakkan bi duguna ba mu ak njàmbaaram rek wa la bakkan gi duggu te bakkan bi yakal ko rek la bëgg de <clears throat> yoy ay pexela yo xamne buñ la ko defé bu len ci top bu len ci alku léegi-léegi ñu fexeel la ba sonn mënuñu laa fexeel ñu tagg la nag tagg googu lañ ci jublu moo yàqal la rek pour yëg loolu sa bopp wala tutin bul topp minuma si ñoom ñaar xas man bakkan bi aji xuloo wala xakaman du caagen seytaane bi nga xam ne mooy xatte xatte lu dëgg fa ante yow taare bu xam nga keydal xas mi bakkan bi aji xuloo sa mu sell mi wala xakami ak seytaane nga xam ne dafay xatte lu dëgg xam nga seen pexe mooy yàqal la rek de bakkan bi nga xam ne mooy xulóog sa xel mi saa yoo xel mi waxee defal lu baax mooy la bul def jaamul yàlla mooy la xaaral ba suba jugal julli mooy la noppalul ba ci kanam sara xeel mooy la dëkk bi dafa metti bul topp bakkan boobu nga xam ne moo di xulóog xel mi waaye bul topp seytaane mi nga xam ne dafa ñëw pour atte diggante bakkan bee xel mi te xam nga ne moom xel lay bakkan lay faral ndax lu bon la bëgg ci yow kon bul topp seytaane bul topp it <clears throat> sa bakkan loolu rek mooy maanaa wax ji ma ngi lay bëgg a waar nag di la fàttali ba léegi waaye doomu aadama boo koy waar la nga koy waaree nga ko sa bopp ci la koy gën a moo tax jëf ju ñaaw ji nga xam ne xam na ne baaxut mu bëgg la koo tere daf ko askane ci boppam mel ni moom moo mel noonu waaye moom kay ku baax la waaye yow la bëgg a wax ak <clears throat> yow mi nga xam ne yaay jàng téere bi képp kuy jàng téere bi rek <clears throat> yow la bëgg ne jikko yi bul ko mel kon nañ ko déglu ñun lay wax ak mu ne astafirullah maa ngi jégul yàlla min xawlin ci wax bila amalin ci lu dul jëf lii ma leen digal yëpp defuma ko te wax loo defut bàkkaar bu màgg la kon nag maa ngi jéggulu yàlla ci jëf ju ñaaw ji ma nekkee mooy di digle lu baax te duma ko def mboolem ñuy digle lu baax nañ dégg lii lu rëy ci ñoom yàlla ne na kabura maqtan inda llaahi an taqulu ma la tafaaluun Bakar bu mag la fa yalla ngeen wax lu ngeen du def Yalla wax na ta'muruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum al kitaba afala taqiluun manax da ngeen digal nit ñi lu baax te du ngeen ko def lol kay du digal lu baax digal nit ñi lu baax ba pare fatte sa bop ta xam nga ne loolu alquran daf ko tere yalla neena xelu leen waaye li ngeen digal li ñi nekk leen ci kon moom li mu bëgg a wax mooy digli la du def bakkaar la bu bon mu askane ko ci boppam nag ne maa ngi jéggul yàlla ci wax lu mu du def laqad nasabtu askane naa bii ci moom naslan ak doom li dee xuq ñel ku jërmel kuy de digle lu baax te jëfoo ko yaa ngi mel ni kuy askane doom ku jigéen ju jërmel jigéen ju jërmel ju mënul am doom nga ne moo jur doom ji kay xam nga ne waxoo dëgg <clears throat> yow muy wax lu baax dangaa mel ni ku yaas ne nit ñi jëf jooju ngay digle ndax ñaareel soo wax lu baax rek dafay mel ni yaa ngi koy def sooy wax ba pare defoo nag sa wax jooju dafa jërmel xam-xam boobu nga am aw wax jooju la mu waroon a jur jur résultat ba mu jur mooy jëfee ko. ndem jëfeewu ah, jëfeewu rek da ngaa jërmel yaag jigéen ju mënul am doom yéen a yem xam-xam bu mënul jëriñ wax ju mënul jëriñ loolu kay ak jërmel la su boobaa jëf jooju bu ñu la ko askanee na nga na xam ne ñu mel ni ku la askanee waa ku askanee jigéen waaw ju mu amul doom ju mënul am doom ñu askanee ko ab doom rek de yow mi nga xam ne sa xam-xam mënoo koo jëfee la ngay digal nit ñi doo ko def kuraas ka ne jëf ju baaxit waaw ngi mel ni kuraas ka ne waaw lu mënu nekk ci yow lu jomm ci yow comme ko askane jigéen ju jërmel ak doom mu askane jëf ji boppam nag man mi nga xam ne maa ngi waxta du ma def maa ngi mel ni rek ju baax juñ ma askane mu mel ni rek waaw dégg nga askane nekk lu jomm comme jigéen <coughs> waaw jumul na am doom ak doom wala boog su ma askanee sama bopp jëf ju baax mu ngi mel ni maa ngi askanee sama bopp lu mu nekk comme ko askanee jigéen ju jërmel ak doom wala boog nga man mi nga xam ne maa ngi wax xam naa xam-xam te jëfeewuma ko dëgg-dëgg waaw askane naa sama bopp waaw ak jërmel ba mel ni jigéen ju mënul am doom di askane boppam waaw ak doom ndax yow mi nga xam ne xam nga te sa xam-xam jurul jëfee yaa ngi wax te la ngay wax jurul jurul la jëfee ko dëgg-dëgg <coughs> waaw ku jërmel nga rek laa wax de loolu la bëgg wax foofu la incha allah musal ñun lay wax ak dégg nga ko déglu waaye moom kay ku baax la ne amartu ko digal la xeere lu baax laakin waaye nag ma atamatu jëfeewuma bii ci moom وما استقمت تجبما فما قولي على الملا يوحي لك أن يلنا لا يستقم جبل نينا مان لي ديغل لو باخ تدفي دفي ومكو مان لي ديغل نجب جوب تجبما من مي خامني جبما انا الملا وخي جبل كو جوت كاي ولا وخ كين جبل <coughs> واو مانام سوما لا وخي جبليت وخ غوغ ملا وخ جبل دولا جيرين دارا واي كاي بو جبوديت واو وانا ديغل لو باخ ndax benn ya, bakar moo gën ñaari bakkaar juboo dégloo lu baax kooku koy juboo tey déglu lu baax moo ko gën waaye dafa bëgg wax ne bu jubut digal gi ngay digal nit ñi lu baax du la jëriñ dara moo tax ma ne fa maa xawli ana sama njëriñu wax lakka ñeel la naan lay jubal amul benn njëriñ digal naa lu baax te defuma ko jubuma kon kay jubal gi ma lay wax amul benn njëriñ wala tuye buluma qablal mawti njëkk dee naafilatan benn naafila walam usalli julluma siwa fardi lu may jullik farata walam asumi wooruma siwa fardi lu may koor farata nee na amul benn bu ma def pour yóbbuloo ko àllaaxira balaa may dee <clears throat> defuluma lenn lu baax yàlla ci naafila julli farata yi rek ci raayam koori farata yi ci raayam ba waaw di la lu baax di la tere lu bon dëgg-dëgg sama mbir doy na waar loolu lépp li mu bëgg a mooy yow mi nga xam ne yaa ngi digal nit ñi lu baax di tere lu bon fexeel jiitu leen ci waaye boo leen ci jiitewul da ngay mel ni sondeur buy lakk sa bopp rek yaa ngi leeralal nit ñi waaye yaa ngi lakk sa bopp <coughs> ak qadri miqdaar azim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh walleen war nañu Yeah, yeah.